Mor Gassama maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu aussi seen euh, auditeurs yëpp. Mor Gassama nga nekk euh, économiste sa xam-xam màcc ci wàllum koom-koom déjà euh, pro nañ wax ci budget wu Sénégal projet bu loi finance pour 2023 ñu ngi ko arrêté ci six mille quatre cent milliards de français fa déjà nga wax ñu luy loi finance ak naka nga gisee yokkute budget bi. waaw jërëjëf. waaw dëgg la ren moom ci deux mille vingt trois bi euh, budget Sénégal ñu ngi ko arrêté effectivement ci euh, juróom benn junni ak ñeent ñeenti téeméeri euh, milliards ci franc CFA boo ko daaw ci deux mille vingt deux bi ñu ngi woon ci juróomi junni ak téeméeri juróom fukki milliards danga ngay gis ne kon daanaka budget bi ci yokk mën na junni ak ñaar téeméeri juróom fukki milliards loolu nag dafa bokk ci évolution fonctionnement normal budget voilà li waral euh, lan pour ko loolu mën a jàll d' abord lañu wàllu finance bi dafa war a jaar assemblée nationale mooy li nga xamante ni bii ministère de l' économie des finances de l' économie technicien dañ koy préparé moom la ñu war mu jàll au niveau assemblée nationale ñu présenté ko fa après nag euh, il faudrait que euh, département yi d' abord ku ci nekk mën a jaar ci mara lu ñuy wax marathon budgétaire pour mën a défendre sa sa sa budget ministère expliqué tax mu yokk ak loo ci na ma def. bu hmm. ñëpp jàllee eh, ci njëlbeen ci ci fin bi noonu euh, ci la ministre de l'économie mën a ñëwaat pour euh, véritablement défendre budget bi moom la gouvernement Sénégal war a fonctionner ci at mi ñu jub jëm mi deux mille vingt trois. Euh, kon yokku ndaw penc réew mi rek lañ ko a defee mënuñu ko defee feneen ndax ñooñu ñoo ko a yow jàpp ni yokku bi lu normal waaw wala déet. Euh, waaw budget bu yokk moom mm, mm, lu normal la budget sax noonu lay fonctionner mhm. ndax booy xool euh, nit ñi dañuy yokk soxla yi di yokk entreprise euh, économie aussi di di di di yokk di gën a jëm ci kanam soxla gën a bari donc c'est tout à fait normal que la ngay lijjanti aussi pour faj soxla yi gën a yokk kooku lu normal la budget presque a bi bépp noonu lay fonctionner voilà léegi nag xëy na peut-être parfois leen di mën a attirer attention boo gisee ne boo jógee ci benn at dellu ci benn at wala ci yokk bëri na lool wala néew na lool su boobaa moom daa nga war taxaw jàngat lu waral loolu. Euh, ñuy wax ni Sénégal dafa am déficit euh, budgétaire déjà ñu taxaw ci euh, lan mooy déficit budgétaire Mor Gassama. waaw boo ñu wax budget d'abord. Euh, ni muy fonctionné budget moom daanaka dafay am lu ñu xay a ak ay dépense li nga xamante ni day dugg ci gafaga réew mi ak li nga xamante ni day génn ci def gafaga réew mi maanaam muy dépense yi a def euh, ñaari mbir moo ci am da koy natt bu dent na liy dugg moo ëpp li génn su boobaa budget bi dañuy wax excédentaire maanaam ëpp na te loolu moom lu raar a gis ko sax fenn ci réew jafe na mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw bu la daanaka euh, beneen bi mooy bu leen liy dugg ci garfa ak liy génn ñoo yem dans ce cas dañuy wax budget bi équilibré loolu nag réew yu bëri moom la ñu xalaat pour jéem ko mais lu jafe la aussi ñetteel bi mooy bi nga laajte mooy budget bi déficitaire mana bu nante ne li ngay yow moo ëpp liy dugg ci sa gafaga dans ce cas dañ naan sa budget dafa déficitaire voilà daanaka boo xoolee réew yu bëri sax ci àdduna bi seen budget dafa chroniquement déficitaire maanaam tout le temps dafay déficitaire parce que mm. tout le temps lu toujours li ñu dépensé dafay ëpp li ñu am ci ay ci comme ay recettes voilà donc dañuy wax nag ne euh, réew moo xam ne dafay dund lu ci ay moyens maanaam vivre au-dessus de ses moyens mm. te souvent kon remboursement dette euh, yooyu le état leb bi nga xamante ni état bi def koy leb pour mën a euh, doxal mbir mbir yi souvent bor yooyu nag naka lañ koy faye exactement Euh, waaw état xam nga ak ni budget di fonctionner déjà nga xam ne boo ko voté rek boo ñëwee ba premier janvier euh, entré en vigueur mën nañ commencé di dépenser alors que procédure dafay kon ñëw tombé ndànk-ndànk à compte-gouttes ba année bi di jeex moo tax état moom bu yen dépense doo mën a xaar bu soxlaa rek day lépp faj ko bu xaalisam ñëw mu delloo moom noonu lay fonctionner voilà léegi nag leb bi am yoo xam ne nga leb ci biir réew mi am na nga leb bitim réew façon leb bi nga koy defee su boobaa boo ko lebee aussi da ngay fay fay intérêt bu ne ay obligation la bu jeexee bu dale bi jeexee nga delloo xaalis voilà euh, état noonu di fonctionné bu da boo xoolee boru Sénégal bi daanaka euh, service de la dette daan chaque année day na daan daana nekk mille milliards environ parce que ab weer bu jot daanaka quatre vingt dix ba quatre vingt milliards dañ koy fay ci rien maanaam weer bu jot Euh, lu mat juróom-ñeent fukk ba juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay milliards moom la ñu fay ci service de la dette loolu na nga gis ne kon effectivement lu xaw a des la ci ci ci ci ci ci ci budget bu Sénégal wante bor moom en tant que tel nekkul lu lu lu bon waaw parce que réew àdduna bi yëpp ku la ëpp xaalis ëpp la barke moom ëpp lu yow lépp mais bu dente ne lépp nga pour tabax ci ay lekkool tabax ci ay lopitaan Ah, ah, eh, jël ci ay jàngalekat ay docteur yi fa ñaate ah, defar ci mbedd yi ah nit ñi mën a dem ci jàmm ak salaam dellusi et cetera def ko ci mbay mi càmm gi doole matériel bi produit bi gën a yokk su boobaa loolu dafay am impact positif ci croissance bi maanaam ci li jëm réew mi kanam waaye bu nente na xaalis boo xam ne donc ko leb na ko dugoo ci ay projet yoo xamante ni daanaka foo war a foo ne dépense nga fukk fekk eh, juróom nga fa wala ñaar wala ñett ak di ci def ay dépenses de prestige su boobaa moom bor a xamante dafa gis ci lool ci gafaga ci réew mi parce que daanaka amul woon njëriñ réew mi lu bari waaw loolu daal moom mooy manaru mm. endettement ci bor Mor Gassama ñu gis ni tamit euh, am na yenn structure wala Euh, kuréel yoo xam ni comme assemblée nationale primature euh, wala HCCT wala conseil économique social environnemental euh, si atum 2023 bi dañu yokk seeni budget déjà loolu yow ban jàngat nga si am ñu gis ne tamit institution yooyu dañoo cher loolu li ñuy coûter daal contribuable sénégalais bi bari na waaw c'est tout à normal bu dente ne budget bi nga xamante ni bii la réew mi di fonctionner yokk na institution yi nga xamante ñoo composé réew mi c'est yokk aussi euh, peut-être fi nga xamante ne bii la ñu war a gën a mën a orienté waxtaan moo doon ne euh, institution yooyu noonu nga xam ne am nañ budget ña fa nekk aussi am ay yenn avantages yi leen jox ngir li ñuy liggéey réew mi est-ce que li ñuy liggéey réew mi réew mi ci boppam waaw HCT boobu ngay wax lu mel ni lu mel ni euh, conseil donc économique social environnemental et cetera am na ci yoo xamante ne bii jàpp na ne mënut a ñàkk lu mel ne ci ndaw yi yeneen jàpp na ne euh, njëriñ bi demee noonu est ce que duñ ko tëggaat wala sax ñu dindi ko définitivement yooyu yëpp nag boo di gisee askan wi ci laaj parce que xëy na gis ci boppam wala ñi mu ci war a gisee boppam euh, voilà mais bu dee démocratie dafa war di fonctionner. ak ay institution lu ci mel ni nationale c'est normal parce que moo war a contrôler du gouvernement est que nag ña nekk ña koy def autre chose ci yooyu nag peut-être lañ war a gën waxtaan bi nekk fa nga toog réew mi teg la fa te jox la ay jumtukaay pour nga liggéey nga mën a liggéey pour sa réew foofu daal je pense que lañ war a gën a mettre hmm. am na si utilisation budget bi. Euh, <laughs> laalata nag boo xamante ni bi moom tudd nga moom boo xamante bi suñu mbokk yi bëgg nañ ko lool mm. suñu mbokk sénégalais comme mbokk yi bëgg nañ lool moom boobu transparence mm. mais transparence li ci ëpp nag daan nag euh, ci ci ci discours yi lay gën a bëri que ci fee moom nekk na loo xam ne lu ñu constaté la waaw parce que euh, bu tànk demuñ ba nga xamante ni mi ministère mi direction yi mi présidence ak fépp fu la neex yow sénégalais boo fa duggee laaj ci budget bi ñoo ñoo ngi nii dépense yi ñu def yëpp ñun la mi ngi nii saytu la ci neexee ci comprendre waat loo ci neexut nga laajte lu tax ak fu mu dugg fu mu jaar ñu leeral la ko naññi naññi tant que dama ba àgg foofu rek jàppale transparence bi des na parce que loolu existé na boo demee ci ay ñu ne ay Norvège keneen keneen dañ ko fay def. Hmm. voilà am na ñu. droit à l'information hmm. voilà seen euh, euh, yi si ministère yi wala euh, direction yi daanaka loo bëgg ci information daal la koy wax dans les moindres détails. te sax ci forum yi boo posé yenn question lan looy répondre envoyé document yi nga soxla et cetera parce que loolu mooy transparence parce que booy gérer jox deniers publics loo xam ne ñëpp ko bokk te yow nga xam ne utoo ci dara lu dut loo xamante bi da jëmale réew kanam ah, je que warul a déranger ñu laaj la nga def fu mu fu mu mais fii lépp noonu la ñoom da nga gis sax structures ndaw yi nekk ci ay quartier yu ndaw ci nekk yenn ci yenn euh, entité état bi ña fa nekk dañu dund ba muy duñ bëgg dara leer rawatina ci kaw et cetera bref ci chaîne bi yëpp la daal maanaam li ñu ci war a def daal dafa bëri lool lool lool mais transparence moom euh, en tout cas des na bu dee am na tamit des na des na des na loolu yu ko defal Euh, dund gi actuellement dafa cher lépp yokk Sénégal euh, temps yi gis nga njiitu réew mi euh, toog na waxtaan ci mbir moom le fas yéene jël ay décision pour wàññi prix yu bare bari est-ce que yow jàpp nga ni techniquement loolu c'est faisable waaw la déet ak euh, fi nga xamante ni inflation bi toll na fa c'est une crise euh, mondiale la ñu daal di wax et puis moom la ñu daal di gis est-ce que Sénégal euh, mën na kase boobu inflation nga xamante ni pratiquement àdduna bi yëpp ñu ngi koy dund mu kase ko fii au niveau national. Ah, su ma am de su ma doon am de mooy la <laughs> mais xam nga xam nga euh, réew dafa am lu muy doxee léegi nag bu dente ne euh, yow dañ la jox nga jiite réew c'est tout à fait c'est tout à fait c'est c'est tout à normal euh, que nga indi ay solution maanaam lu jafe-jafe am tu es obligé nga taxaw pour indi ay solution ndax loolu moo a ñu fal la fal la pour nga tëdd di nelaw fal la pour nga jël avion di entre deux deux deux deux hôtels ak deux deux voilà deux pour nga jaamu soxla askan bi donc sox problème bu mu am foofu rek na ko mais xam nga mbirum euh, njëg yu cher yi euh, dafa am lu bëri loo xam ne daf ci rëcc d'abord contrôlé wu ndax bu nante ne yow bu nante yaa bi wala ceeb bi fa muy du ci yow. Mm-hmm. amoo ci contrôle nga gis ne kay andi transport la mooy mbirum logistique bi seen prix yokk nañ ko doublé nañ la ñuy wax. nga gis ne euh, boo bëggee donc pétrole aussi lépp lu na bu baax a baax depuis crise euh, ukrainienne bi commencé ba léegi euh, donc yow bu ñëwee sa réew daanaka liñ ci contrôle bariwul donc yow boo na bëggee ne wàññi yaa ngi wàññi aussi yaa ngi dugg ci lu jafe lool lu jafe état foofu ngay solution maanaam ñaa ngi jéem a subventionné renonce yenn taxes euh, yi si loolu mën nañ ko comprendre mais état taxe lay dundee boo mën nga wàññi wàññi mais parfois dafa am ay limite parce que après yow loo war lan nga war a mën fonctionner bu leen tey yow li nga war a dundee lu ci bëri nga ko renoncer da ngay obligé après nooy def les bi bitim réew rek pour mën a euh, fonctionner donc voilà moo tax li muy def ñuy def c'est pas mal toujours ñu jëm. Mhm. maintenant comme crise bu amee ay mesures conjoncturelles nga jël pour jéem a lutter contre la crise mais après nga gën a bàyyi xel lu wax li ñuy wax ay mesures structurelles yi nga xamante bi mooy tax nga am ay solution à long terme voilà maanaam tey bu dante dund bi la nga nan la war a def ba vraiment euh, mën a am sama souveraineté alimentaire pour cela na laay suqalee mbay mi na laay suqalee napp gi càmm gi ainsi de suite mu gën ko moderniser davantage euh, ñi ci nekk nan la leen jàppale ba luñ mënta am après ñu encadre leen pour se bu ñu war a def conservation bu ñu a def transformation commercialisation et cetera et cetera je que foofu la ñu war a gën a mettre l'accent pour euh, am solution bu durable waaw mais bu dul loolu moom euh, toujours da ngay fragile di dépendre de l'extérieur et que crise bu am nu mu néew néew pour mu mu mu mu kii la euh, néewul sa daaneel la maanaam néewul doole sa sa sa askan sonal leen ci ci ci parce que c'est dañoo néew doole et cetera euh, day yomb trop voilà léegi boo xoolee comportement ñun suñu réew yi ak pays développé ba tey boobu parce que ñooñu gis nañu peut-être population bi nekk am na tuuti pouvoir d'achat moo tax dañuy ñem jëm ñafe tout temps di appliquer réalité prix mais bu dee ñun defewu noonu moo tax état day gën a effort exceptionnel pour di mën di parce que ñun pays en développement la nekk pays sous-développé te pays yu mel ni suñu bi ay néew bu njëkk yokkee noonu l' avenir a am solution bu durable. beneen équation peut-être euh, quelques minutes ci euh, location bu cher bi est-ce que yow en tant que économiste am nga looy suggérer état bi pour location bi mën a wàññeeku. Euh, waaw loolu location yi moom je pense que war biñ ci war a jublu yàgg na. te man dama jàpp ne état li mu waroon mën dëgg-dëgg mooy li wax une politique active de l'habitat kooku daal ci la ñu war a gën a mettre l'accent nga xamante bi da nga tabax lu bari. waa seen HLM mi ngi fii seen HLM comme comme la SICAP boo jamono yi dañuy tabax dëkk ñii di liggéey mën a fay loyer vingt cinq mille mille daanaka ñoom ñëpp amoon seen kër bopp di def dans contrat location ba tey ñoom ñëpp am nañ seen kër tey léegi dañuy soo xamante dañuy fay loyer cent cinquante mille deux cent cinquante mille dix ans après yaa ngi nekk toujours kër jàmbur loolu xel mënu ko nangu ça dire que tey euh, ñoom ñooñu il faut jox la ay terre ñu ñu ñu tabax lu bari à Dakar comme dans la région voilà ñi nga xamante ni nag am nañ possibilité mën a fay cent mille cent cinquante mille deux cent mille trois cent mille bu dee ku nekk fa nga dëkk yaa moom euh, je pense que yow mii luwe tey même boo yokkee tamit nga xam na ñi nga xam ne mënuñoo fay loolu peut-être ñoo ci des boo yokkee pour nga gis ku jënd ku la fay normal du yomb à moins nga tombé ci ay gan bi teew rek ñëw pour quelque temps delluwaat bu dul loolu tamit li ci ëpp ca tribunal ba lay waaw ak xaalis bu nax saay dans cas da nga tu nga revoir les choses à la baisse waaw moo tax encore une a baax sur l'offre offre mooy défaut offre bi mooy parce que muy SNHLM di SICAP ni ñu waroon doxalee dëgg defuñ ko de cent hmm. ngi ci ah, euh, octobre deux mille deux mille deux donc deux mille vingt trois agsi na dee cent bi ñu wax yow nii nu mu dee dee soixante dix mille ba. ba ba quatre soixante quinze mille waroon na da waroon na disponible mais bu ñu demee wut noonu parce que quinze mille à vingt mille ñoo disponible bu bëree bëri ça ci ñu temps bi c'est sûr et certain que loolu defal ci trois ans et demi ci un an demi du du loolu ngay ko am moo ci mat waaw déjà man dama ci interrogé wu nan lañ ma pour annoncer lu mel noonu te mu wër la ne doo ko parce que dañ ci war a waxtaan. am ci ay partenaire ba ne la carrément lii ak lii moo mën a nekk boo defee lii def lii ci délai bi mën na nekk boo amee lii ak lii ci délai bi mën na nekk dans ce cas nga mën a prononcé wu ci loolu voilà mais annonce population loolu tam wër ne après dañu ko mën a exécuter yëpp aussi baaxul daal voilà bref politique active de que mooy li nga xamante bi mooy mooy indi indi solution bu bu durable. Euh, Mor Gassama Rewmi FM mi lay jaajëfal. waaw kontaan nañ ci loolu di jokkoo ak euh, di échanger ak seen auditeurs comme d'habitude euh, may fàttali ni économiste nga sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom-koom. waaw jërëjëf nekk jàngale jàngalekat euh, ci école ba ñu wax INSEPS Institut national de l' éducation populaire et du sport mu nekk Université Anta Diop de Dakar. merci beaucoup.